in fii jumalin ci ay jumla mufidatin al awsaafa naadiya assababiyata al aatiyata ila nu ootin jëm ci ay naat xaqiqiyatin yi ko jug dëgg-dëgg mboolem naat yim andi fii dañoo nekk sababiyu mu bëgg nag nga wëlbati leen ñoom ñëpp ñu nekk xaqiqiyu shadidun ku di aji tar darbuhu seddam ba léegi bu ne moon haada laylun shadidun darbuhu loolu naat bi sababiyu la daa bëgg nag nga soppi ko xaqiqiyu dik nga ne haada laylun shadidul bardi mutalaatimun kuy aju dóorante mawjuhoo duusam wa wane woon haada baxrun mutalaatimun mawjuhu kooku naat sabab yu la waaye boo ne rek haada baxrun mutalaatimul mawji nga def ko nag ladidun aji neex taamuhoo cafkaam la naafihun ku di aj jëriñ xilmuhoo xam-xamam ba daayifun ku di aji doye di nuuruhoo leeram multafatun ku di aji ràbbaloo asjaaruhoo ay garabam maailatun ku di aji jeng axzaanuhoo ay caram mufattahatun ku di kuñ ubbi nawaafiduhaa ay faneetaram at tamrin at taamin kayfa tuxawilu naka ngay wëlbatee an naata al mufrada al madhkura fi l jumlati al aatiyati ilal mufradati jëm ci kenn al muannasati ka di kuñ jigéenal tuma ilal mutanna topp jëm ci tasniya wal jami ak jamhu bi naw xay ci ñaari façon ñaar dafa am jumla booy séenee lañ jàng ko dañ fa andi yaari naat yoo xam ne la mu dellu day góor tey lenn boole ca mu bëgg nag nga soppi ko boo soppee man xamat ma rek mu doon jigéen taw nga soppi naat ba muy jigéen nga jàll soppi leen ñu doon tasniya jàll soppi leen ñu doon jamhu te it tasniya yi ñaar la bu góor ak bu jigéen jamhu it ñaar la mbooloo mu góor ak mbooloo mu jigéen xaduwun ab noonu xaaqilun bu di aji xellu xayrun moo gën min sadiqin ci ab xarit jaahilin bu di aji réer bu ñu nee noon bu yeewu moo gën xarit bu doxe xadduwun xaaqilun ku ci nekk mufrad mu góor la min sadiqin jaahilin sadiqin jaahilin ku ci nekk mufrad mu góor la boo ko soppee ku ci nekk muy kenn ku jigéen nag ngay wax xadduwatun xaaqilatun xayrun min sadiqatin jaahilatin boo ko defee ñaar ñu góor muy xaduwaani xaaqilaani xayrun min sadiqayni jaahilayni soo ko defee ñaar ñu jigéen muy xaduwataani xaaqilataani xayrun min sadiqatayni jaahilatayni soo ko defee mboolum góor muy aadaaun xaaqiloona xayrun min asdiqaa jaahiliina soo ko defee mbooloo mu jigéen muy xaduwaatun xaaqilaatun xayrun min sadiqaatin jaahilaatin attamrin attaasia xawil annoota almufradata fi ljumali al aatiyati ilaa jumalin wasfiyatin naat yi bëgg a dikk dañoo nekk mufrad nekkuñu jumla mu bëgg nag nga soppi leen ñu doon ay jumla yu nekk naat te bañ a nekkati mufrad yu nekk naat marartu romboon naa marartu romboon naa bi xayyin ci ab quartier musdaximun buy aji buux buuxloo wala buy aji xat bi sukkaani ci habitant musdaximun boobu naat la bu nekk mufrad daa bëgg nga soppi ko jumla nga ne marartu bi xayyin yasdaximu bi sukkaani sami'tu dégg naa sawtan kàddu matriban guy aj sigréloo daa bëgg nga soppi ko sami'atu sawtan yutribu naalat am na misaru manzilatan wàccukaay aaliyatan bi aji kawe ki wax naalat misru mansilatan taaloo nga def ci des nag saqaytu nàndal naa kalban ab xaj laa xitan bu di aji yalkat yalkat ngir mar xalilun aji néew mu dabbaru njëriñuñ toppatoo ba mu baax xayrul moo gën min kathirin ci aji bari mu baax farin njëriñuñu tasaare lu néew nga toppatoo ko ba mu baax moo gën lu bare bari loo sàggane ba mu yàqu iqbal nangul nusxan ak laabiire naafixan gu di aj jariñ min axin tukkee ci mbokk muxlisin mi aji sellal at tamrin alxaashir xawil aljumala alwasfiyata fi libarati al aatiyati ila nuotin mufradatin bii daa wuuteeg bee nga weesu bee nga weesu moom naxat ba ca bu ca nekk ci ñoom ca misaal ya daa nekkoon mufrad bëggoon nga soppi ko jumla fii nag moom naat bi ci boppam dafa nekk jumla bëgg nga soppi ko mufrad ni ki xaabaltu jàkkaarloo na maag wala dan ab xale yas yuuxu bopp dana yuuxu daa bëgg nga def xaabaltu wala dan saaixan nga xam ne yas yuuxu jumla yooju mu nekkoon naat ci wala dan nga soppi ko saaixan nag muy mufrad rek sami'tu dégg naa xatiban aj xutba yu aktiru kooku dana jeexital fii saamihi ci way déggam daa ba nga def ko sami'tu xatiban mu aktiran fii saamihihi waxibu danaa sopp kulla xaamilin jëpp aji jëf yut xinu kooku dana xereñe xamalahoo jëfam shahadnaa jàkkaarloo na noog xitaaran ab terrain sayru foo boog doxam ba sarihun aji gaaw la xataftu ñëwante naa xalaa faqirin ci aji ñàkk nafsu foo koog bakkanam ba xafiifatun aji fegu la rakibtu war naa baaxiratan bato xurafuha bopp ay sàmbaram jamilatun aji rafet lañu at tamrin alhaadiya hachar mën la sii lan mooy la nga xam ne tux di suxoo da nga ko sos minat taxyir ci soppi fil jumali al aatiyati di tajxala ngir nga def al axwaala xaaliya allati ya nga xam ne bihaa nekk nañ ci ñoom nootan ñu di ay naat wax yee mu lay bëgg andil mu ay jumla bu ca nekk jumlub xaal dafa nekk ndax topp gam topp maarifa mu ne nag nooy def ba jumla ba soppi ku jumlab naat te bañ a nekkati jumlab xaal mooy rek la ko jiitu woon te doon maarifa moom ngay soppi rek mu doon nakira bi ne jaa dikk na albintu xale bu jigéen ba tabaxaku mbir moom dana ree boo ne rek jaat bintun tabaxaku tabaxaku daal soppi ku jumla jooju di naat ci bintun rakibtu war naa alxisaana fas wa jaamihan mbir mu muy aji màmm kon xaal yi fii am na fi yu nekk jumla am na ci nekkul jumla ni ki jaamihan bi ma toll ak bee ma ciy bëgg a teg muy saatihan waaye bu mu ci mën doon rek boo bëggee soppi baat boobu bu dee benn baat ni ki jaamihan mbaa saatihan mu soppi ko naat maarifa bu ko jiitu rek ngay soppi nakira mooy la amoon taara moom ngay dindi taara ba bu dee jumla itam te la ko jiitu woon taara ba jumla bu nekkoon xaal nga dinti taara ba mu soppiku nakkira jumla ba doon naat rakibtu alxisaana jaamixan boo ko waxee jaamixan day nekk xaal ci alxisaana waaye boo ne rakibtu xisaanan jaamixan xisaanan jaamixan daal nekk naat ci moom zahara feeñ na ak nuuru leer ga saati an mbir mi aji jolli boo ne zahara nuurun saatiun lay soppi ku doon naat ci moom absar naa gis nañu albarqa melxat ga yalmaaw mbir moom dana melxati boo ne absar naa barqan yalmaaw rek jumla yalmaaw daal soppi ku jumlay naat at tamrin at thaniya hachar xayru soppil kulla jumlatin min al jumalil aatiyati li tajxala ngir nga def al axbaara xabar ya allati ya nga xam ne bihaa nekk nañ ci ñoom nootan ñu di ay naat jumla yi bëgg a dikk dafa bëgg la nekk xabar fooxe mu nekk xabar la waaye daa bëgg nga soppi jumla yi ba nga xamee ne la nekkoon xabar day soppi ku naat mel ni alxujratu saal ba nadifatun aji set la daa bëgg na nga soppi jumla ji ba nadifatun bañ a nekkati xabar te doon naat man nga ne alxujratu saal ba an nadifatu bay aji set man nga cee teg mahbubatun lu ñu sopp la su boobaa an nadifatu xabar la waaye sopp ku na naat alxadiqatu jardin ba naadiratun aji na tax la azharuha ay tóortóoram naadiratun jooju la bëgg nga soppi ko naat bañ a nekk ci xabar ndax fi mu nekk nii xabar la kon boo nee alxadiqatu an naadiratu azharuha boo ci tegee jamilatun kon def nga li mu bëggoon nga def ko nag ad darsu leçon ba mafhumun lu ñu dégg la ak azzaharatu tóortóor ba naasixun aji sell la bayaaduha ak weexam wala ab weexaayam nga def at tamrin at taalifa xachar jàll ca at tamrin arabi xachar moom nag incha compo la fi incha incha la compo la sif melal xujrata naw mi ka sa néegub tëdd maanaam néeg bi ngay tëdd wataxammad te nga jublu wataxammad an taatiya nga dikkee fii mawduuxi ko ci sab tem bi katiirin ci lu bari mina nuxooti ci ay naat suma bàyyin topp nga leeral fii jadaawi la ci ay liste maa la nga xam ne kaana nekk na min haa ci ñoom naat yi xaqiiqiyan di xaqiiqiyu wamaag la nga xam ne kaana nekk na sababiyan di sababiyu wamaag la nga xam ne kaana nekk na jumlatan di jumla ñu bëgg nga sosal sa bopp ay wax yoo xam ne da nga cey wax nii bi ngay tëdd na mu mel na nga jéemaale nag ci biir wax ji nga indiwaale ay naat yu bare bari te boo noppee nag nga def ñetti liste liste bee da nga fay féetale mboolem naat yi nga xam ne ñoo nekk xaqiiqi yi liste bee nga féetale fa mboolem naat yi nekk sabab yi liste bee nga boole fa mboolem naat yi nekk jumla ñëw nag ci at taw kii du feddali xaadasa ni waxtaan naag man alwasiiru ministre ba nafsuhu jëmmi boppam xaabaltu jàkkaarloo na maag alwasiira ministre ba nafsuhu jëmmi boppam katabtu bind naa ilal wasiiri jëm ci ministre ba nafsihi jëmmi boppam ixtaraqat lakk na addaaru kër ga kulluhaa léppam xaratu jàng naa alkitaaba téere ba kullahoo léppam faraxatu noppi naa minal aamaali ci liggéey ya kullihaa mbooli seen najaxa at mi na al axawaani yaari mbokk ya kilaahuma képp ci ñoom ñaar dabax naa rendi nanu alkabshayni ñaari xaaf ya kilayhima képp ci ñoom ñaar sakkan naa dëkke nanu fil man si lay ni ci ñaari kër ya kilayhima képp ci ñoom ñaar raaytu gis naa attim saaxa jësit ba te lu ko baamu attim saaxa xadara teew na te lu baamu xadara teew na ak raayibu aji tukki jëmba aji fàddu ja laa déedéet laa axoonu duma war alxax de kolore ga anta yow almaloomu yaay ka ñu yedd te la ko baamuwaat anta almaloomu albaxs ida qultu boo waxee ne xaadasani waxtaan naag man alwasiru ministre ba faqad yastanzimu amaana bu réelee assaamihu aji dégg ja zalika loolee li anna muhaadasatal wasaraa yi ngir naka waxtaan ak ministre yi laysat déet moom minal umuuri mi bokk ci mbir yi alhayinati aji yomb wa rubbama yatawahamu amaana mu defe amaana mu foog ne ànd lësi naka ka nga xam ne xaadasaka waxtaan naag yow xoo moom wakiiluhu mooy ab déléguéem wala sous secrétaire am aw amiru sirrihi wala secrétaire am aw rajulun wala waay aaxaru jeneen min musaaxidihi ci ay addusiyeem ay addusiyeem wa annaka ak naka yow zakarta tudd nga rek lafzal wasiri baatub alwasiri sahwan ngir juum rek aw xasatta mbaa nga jublu bi ci moom saxsan jëmm aaxara jeneen mu mën ci ñi nga xam ne aslaf naa jiital nanu leen fa ida aratta boo bëggee nag allah yatasarraba mu bañ a royaat mislu haza tawahumi kem gileeg defe mbaa kem gileeg foog ila dihni saamihi jëm ci xelum aji dégg ja fa dukur tuddal kalimata nafsuhu baa nga ne fa dukur tuddal kalimata nafsihi baatub nafsihi nafsuhu nafsahu nafsihi ñooyemoo lam topp rek moom lay topp baada lafdul wasiir yi ci gannaaw baatub alwasiir waxul te nga wax ne xaadasa nii alwasiiru nafsuhu xalaa naxu ma ci lu mel ni nga xam ne fil misaali nekk na ci misaal ma al awali ma jëkk daa wax ne soo nee ministre bi waxtaan naa man ku dégg ngay wax man naa mu jàpp ne demewul noona ndax waxtaan ak ministre dafa yombewul noona mën naa foog ne daal secrétaire am wala kenn ci ay artuyam rek moo waxtaane yow waaye jëm ministre bi ci boppam waxtaanul ak yow mel ne kon day jàpp ne dangaa tudd baatu alwasir ndax rek juum mbaa boog nga tudd ko noppi te jubloo jëmmam da ngaa jublu koo xam ne bu waxtaane yow rek mel na ne ministère bi waxtaan naa yow mais nag boo bëggee nag ñu xam ne jëmmi ministre bi ci boppam ma waxtaan ak yow gannaaw ba nga tuddee baatub alwasir da nga cee dolli nafsu hoo ni nga xam ne moom nga gis ci kaw booy jàng misaal mi ne xaadasa nii alwasiru nafsu hoo boo ko defee ñu daal di xam ne jëmmi ministre bi ci boppam ma waxtaan ak yow waaye du secrétaire am mbaa keneen ci ñooy liggéey ak moom mooy fa innaka naka yow in faalta boo defee daalika loolee ta akkada feddliku al maana maxnaama al xaqiqiyu may ko jug dëgg-dëgg walam yobbuxa te du desati xunaaka foofee majaalun genn wëndeelu ba benn wëndeelukaay li tawaxumi ñeel ak defe wa min ajli saalik ngir loolu tusamma def na tudde kalimatu nafsuhoo baatub nafsuhoo wala mbaa nga ne kalimatu nafsihi fil amsilati ci misaal yi ak talaasat yadi yet al ula yadi way jëkk tawkiidan tawkiid ndegam boo indee baatu nafsuhu rek teg ko ci alwasiru ñu daal di xam ne ni baat yi wanekat noonu la max naa ma demee juumoo la am dëgg-dëgg rek nga wax loolu nag moo tax kon baatu nafsuhu boobu ñu koy wooyee tawkiid kon fetli na maxnaama bañ xam ne na nga waxee noonu nga jublu woon naka jekk wa yusamma def na tudde al lafzu baat ba assaabiqu bi aji jiitu assaabiqu waxoote moom albasiru moo di albasir mu ak kadan lu ñu feddali baat ba nga xam ne nag ci nga delloo nafsuhoo ji moom la ñu wooye mu akkat lu ñu feddali baat bi ci bopp nag mooy tawkiid moom moo feddali mbaa nga tudde ko mu ak kidd ba mislu kalimati nafsi kem baatub ak nafsi la fii maa ci la nga xam ne taqaddama jiitu na kalimatu aynin baatub xayn bi fi di jëmm li nga jëfandikoo nafsu nag mën nga koo jëfandikoo xaynu ba tey ñoo bokk ci googu wàll lu nafsu man rek xaynu mën na ko wa isaa xulte boo waxee ne ihtaraqat lakk na addaaru kër ga faqad yastazimu amaana bu réyalee assaamihu aji dégg ja dalika loolee eddan ba tey wa yaqul tamuy wax fii nafsihi ci xelam la àllal lësi xëy na lee la nga xam ne ixtarax lakk na fit daari ci kër ga ataatuha mooy ay mëbalam aw abwaabuha wala ay buntam aw xurfatun wala ab sàmbar min xurafiha ci ay sàmbaram waya tawaxamu te muy foog ne ànd naka naka yow zakarta tudd nga law zat daari baatub at daar saxwan ci njuumte fa isa arata boo bëggee anta dafa nga jiñ an walis ko misla hadal wahmi kem gileeg defe misla fasit dolil kalimata kulluha baatub kulluha mbaa kalimata kulliha waxul te nga wax ne ixtaraxat lakk na ad daaru kër ga kulluha léppam ala nax yu ma ci lu mel ni nga xam ne fil misaal nekk na ci misaal ma arraabi mi aji ñeenteel fa bi daalika ci loolee yata akkadu lay feddliku al maana maxnaama al xaqiqiyu may ko ju dëgg-dëgg xinda saamihi fa aji dégg ja wala yebbu xaate du desati loxoo ñeel ko fil fahmi ca xel ma mazhabun aw yoon aaxaru waneen yazhabu wow dana dem ilahi jëm ci moom ba tey ne boo nee kër ga lakk na xëy na ki dégg nga wax jàpp ne ci dëgg-dëgg jëmmi kër ga lëkkut xëy na meuble ya wala bunt ya wala ab néeg ci ay néegi kër ga rek moo lakk xëy na mu jàpp na ngaa jëm rek tudd kër gi mbaa da ngaa waxee noonu rek waaye daal jëmmi kër ga ci boppam lëkkut ba bëggee nag mu xam bu wër ne kër gi nga wax ci boppam kat moo lakk jëmmi kër gaa lakk ba nga ne ihtaraqati daaru da nga cee dolli kulluhaa boo ne kulluhaa mu daal xam ne kër ga lépp a lakk xam ne kon na nga waxe woon ci zahir baatu kulluhaa fetli na ko ba nga xam ne noonu rek la amee ki ngay waxal du amati leneen lu muy yaakaar mbaa lu muy foog lu bokkut ak loola wa min ajli zalik ngir loolu yu sama def na tudde lawzu kullin baatub kulli fil amsilati ci misaal yi ak salaasati ya di yet ak saaniyati aji ñaareel tawkiidan tawkiid aydan ba tey wayu akkadu def na feddalee bi xaa ci moom kullu hinda iraadati shumooli fanamu ak daj kapp wal xumoomi ako matale loolu moo tax nag nee na baatub kullu boobu ci fee nga ko séen ci misaal yi ñu koy jàppee tawkiit ñu jàpp ne kullu foo ko séen ci misaal yi rek tawkiit la fa ndax daa fedd li max naa ma bañ xam lañ ci jublu bu wér a wér nga jàppale foofu ne kullu moom max naa mi mu wone ci booy fedd li mooy ak daj kapp ak matale lépp dara bañ a génn loolu lay kulluy fedd li wa misluha am ke moom la fii zalika ci loolee kalimatu jamihin baatub jami jami ba tey lu kullu mën rek mën na ko ci feddli wa isa qulta boo waxee ne najaxa al axawaani faqad yastaksiru amaana bu ëppalee amaana bu jàppee muy lu ëpp asaabi aji dégg ja zalika loolee wa yazunnu te muy jort ne ana lësi naka ka nga xam ne najaxa at mi na huwa moom ahaduhuma kenn la ci ñoom ñaar fa ida arata boo bëggee anta dafa nga jiñ an walis ko hada zann bi la njortu faxul waxal ne najaxal axawaani kilahuma li yata akkada ngir na feddliku almaana maxnaama ëllësi ma nga xam ne arata namoon nga ko nee na boo nee yaari mbokk yi day at mi nañu ne rek najaxal axawaani te dooliwoo ci dara kii dégg ngay wax amaana mu jàpp ne ah yaari mbokk yëpp bokk at mbeendoo day yombewul noona xëy na kenn ka at mi rek dangaa juum wax ñaar ñi waaye kenn ka at mi boo bëggee nag mu xam ne kat ni nga ko waxee noonu la yaari mbokk yëpp ñoo at mi da ngay wax na jaxal axawaani dolli ca kilaahuma kilaahuma jooju mooy tax ki ngay waxal daldi xam ne juumoo kat yaay mbokk yépp ñoo bokk at mi wali zalik ngir loolu tusamma def na tudde kalimatu kilaa baatub kilaa tawkiidan tawkiit wax yow moom nag li ifaadati shumooli ñeel na tegtale ak daj kapp mbaa nga ne ñeel na jariñub ak daj kapp ka kulli niki kullu wa jamihin ak jami kon baatub kilaa tawkiit la mooy dafa fedd li foofu mu taxaw te it loolu mooy njëriñam mën nga koo jëfandikoo feneen moom nag bu dee fedd li moo kulloog jamihu ñoo bokk lu ñu tegtale mooy wane ne rek lépp dugg na ci àtte ba amut lu ca génn wala yu akkadu deful feddlee bi xaa ci moom ilal mu fànnaa ndare lañu tasniya ak mu zakkaru lat luñ góoral waaye nag kilaa moom dañ koy feddlee ñaar ñu góor niki al axawaan faaw rek lu mel ne la ñuy feddlee kilaa wa misluha am ke moom la fil maanaa ci maxnaama wattaw kii di ak feddli ga kalimatu kilta baatub kilta xayra ann haasihi ndare naka kile moom lil musanna ñeena tasniya ba al mu anna si bari buñ jigéenal li kilaa man kilta it mën na ko kilta day feddli moo kilaa ñoo bokk maxnaa li ñu wutee nag mooy kilaa day dellu ci ñaar ñu góor kilta moom dellu ci ñaar ñu jigéen wala ma kaanat ba nekkee alvaabu tawkiidi baati fedli ga asitatu juróom benn allati yi nga xam ne marat romb nañu bi ko ci yow waxee te ñoom an nafsu moo di an nafsu wal xaynu ak xaynu wa kullun wa jamihun wa kilaa wa kiltaa tuwaafiqu di dëppoonteeg al asma alisimia al mu akkadata eduñ feddlee bihaa ci ñoom fil maanaa ci maanaa watu xaalifuha te ñi wutanteeg ñoom fi lafzi ci baat ba summiya tuddeef na at tawkiidu fedd léegi biha ak ñoom tawkiidan tawkiid maana wi yeen ku ko jug maana ndegam nag juróom-benni baat yi nga wax te mooy an nafsu al aynu ak kullu ak jamihu ak kilaa kilta boo leen jëlee di fedd léegi ñoom boo leen xoolee xool lañuy fedd li dañuy wute ci baat te teewul ñu fedd li maxnaama waaye ci baat moom dañ cay wute duñ ca bokk dara loolu moo tax nag fedd li gu demee nii bu ko baat yi defee dañ koy tuddee fedd li maxnaa fedd li gu dellu ca maxnaama tuddee ko tawkiit maana wi wamin baax si ca gëstu ga fii jamihi alvazit tawkiidi ci mboolem baati fedd li ga almaana wi yi kay ko jug maxnaa allati ya nga xam ne taraaxaa nga leen gis fil amsilati ca misaal ya al mutaqaddimati aji jiitu wa fii jamihil amsilati ak ci mboolem misaal ya al uxraa yi ci des tajidu da nga fekk awalan ci njëlbéenne annaha naka ñoom tatbaaw danañu topp al mu akkada la ñuy feddli fii ixraabihi ci ixraabam wa thaniyan cim ñaareel da nga fekk ne anna kulla lafzin naka bépp baat min haa ci ñoom yashtamilu dina làmboo xalaa damirin ci damir yu taabiqu boobu dana dëppoonteeg al mu akkada la ñuy feddli fii tazkirihi ci ak góoralam wa taanisihi ak ku jigéenalam wa fii ifraadihi ak ci ak defam mufrad wa tasniyatihi akuk tasniyaam wa jamahi akuk jamxoom mais nag boo delloo xoolaat baat yi nga xam ne nee nga moom ngay feddlee feddlik maanawi yu doon xoolee ni ñëwee ci misaal yi nga jàng waweesu ko mbaa sax mbaa sax boo leen xooloon feneen ci téere yi da nga ca seetlu yaar yu mat a seetlu mooy da nga gis ne ku ci nekk day topp la muy feddli ci ihraab lu koo ko def mu def ko bu rafaayee mu rafaa bu nasabee mu nasab bu jaree mu jar loolu mooy benn anam bi ca des mooy ku ci ne foo ko fekk muy feddli day làmboo damir boo xam ne day dellu ca la muy feddli te dëppoonteeg moom bu loolu dee góor damir bi doon góor bu loolu dee jigéen damir bi doon jigéen bu loolu dee ñaar damir bi doon ñaar bu dee mbooloo muy mbooloo nga xam ni moom daal baat yi bu ñuy feddli faaw nga jokk ci damir bu yelloonteeg la ñuy feddli unzur xoolal ilal amsilati jëm ci misaal ya al arbaxati ya di yent al axirati tajit kon nga fekk al vazan ay baat mu karrarat yu duñ baamu xiye ñoom muy at timsaahu wa huwa te moom ismun li sim la wa xadara ak xadara wa huwa te moom fi'lun fi'al la wala ak laa wa huwa te moom xarfun araf la wa antal maloomu antal maloomu wa hiya te moom jumlatun jumla la wa iza baxasta boo gëstoo fi sababi haada takraari ci sababus gi léeg baamu lam tajid doo fekk si waa ànnal mutakallima ndari nag aji wax ja araada bëgg na an yu akkida mu feddli allafza baat ba allasi ba nga xam ne doon na jort na ne ànn saamiha nag aji dégg ja xad yof xamu amaana mu déggee maanaam mu xamee min hu ci moom xilaafal maqsuudi lu wuteeg la mu jubloo wali daalik ngir loolu yu samma def na tudde kullu lafzin bépp baat minal alfaazi ca baat ya almuaadati yeduñu baamu xanaa fii tawkiidan tawkiit nee na boo xoolee yeenti misaal yu mujj da nga gis ne am na ci ay baat yu ñuy wax yaari yoon di ki baat